li waraloon ndaje mi tey dañoo laaj dañuy laaj suñu mouvement ànd taxawu réew mi ñëw ànd ko coalition Idy euh, 2019 bon voilà dañuy am yaa dañu dañu yaakaar ne jafe-jafe yi doom yi dëkk bi dund tey président Idrissa rek Seck rek moo ñu si mën a génne moo tax ñu ànd doon benn say doon benn fas yéene soutenir président Idrissa Seck pour mu gagné élection yi 2019. ñu bokk après loolu lan jàpp nañ ne Sénégal euh, Touba mooy deuxième ville du Sénégal Touba mooy dëkk bi ëpp ay doomu aadama yi fi yeewoo ginnaaw Ndakaaru amul benn industrie bu fuy euh, état mos a def ci ci ci dëkk bi te doomi réew mi doomi dëkk bi tey soo demee Dakar dinaa ne koo tasar soo soo ko foo dëkk moom Touba laa dëkk. te war nañu mën a xëy di liggéey ci dëkk bi hmm. euh, di wàcc di ñibbi seen i kër hmm. bon état bi fi nekkoon amul leen lu ma teg tey ci sa loxo fii ci dëkk bi ne ne euh, état bi fi defoon. jafe-jafe yi bëri na dëkk bi amul canal yu doy soo demee ci santaan yi amuñu amuñu courant amuñu ndox amuñu courant amuñu tari yu doy si courant su nawet su su nawet bi ñëwee. secteur boo dem euh, day day day day day indoone dañu jàpp ne suñu falee président Idrissa Seck jafe-jafe yëpp dinañ dinañu ci génn. woon tey dalal suñu ay frères muy mouvement taxawu réew mi ci njiitalu suñu xarit Abdou Lahad Ndiir ñuy ñëw lancé seen mouvement ñëw rejoindre coalition Idy 2019 ñu ñëw fii tey ci suñu quartier général pour dugg ci biir coalition bi. ànd ak yeneen mouvement yoo xamante ni invité nañ leen pour ñu ñëw lancer mouvement bi en même temps defaale benn caravane de sensibilisation pour dëkk bi pour wax nit ñi que ne euh, fi situation réew mi toll soit bi ñu am mooy président Idrissa Seck loolu nekk na mbégte moo xamante ni am nañ ko te gis nañ mobilisation bi nga xamante ni jeunesse su Touba am nañ ko pour jële fi kii nga xamante ni moo fi nekk di jaxasi réew mi nekk fi di yàq réew mi muy président Macky Sall ci situation bi toll gis nañ ne réew mi ay ndaw ñoo koy yóbbu ci kanam moo tax booy xool tey ci langement mouvement bi ak ñi fi daje yëpp ay jeunes nga fiy gis mais ay jeunes yoo xamante ni ñu mature lañ ñu yor seen ay carte électeur pour décider au soir au soir du 24 février changer Sénégal jële fi li nga xamante ni moo fi nekk. xam nga dogal boobu nekkul ne dañu wax ne ay euh, ministre de l'intérieur dafa war a saytu kaaraange wu candidat ministre de l'intérieur kaaraange wu Sénégal yëpp la war a saytu mhm. te gis nañ violence bi ni mu baree jamono ji te ñoom ñoo koy provoqué mhm. ndax gis nañ caravane bu jug génn di dem ñu lay kar di def ay provocation mais li ñuy wax mooy ñun coalition Idy 2019 duñ ay tàppet duñ coalition boo xamante ni ay bundaxataal dinañ leen yëngal li ñuy lancé appel mooy di di alerté que ne gis nañ fii ci Touba ay nit ñoo xamante ni ñi ngi wax ci suuf que ne dañoo bëgg a yàq bureau de vote yi. Mm-hmm. parce que ñoom waa coalition mag yi wala coalition Benno Bokk Yaakaar ci seen biir ay wax li ñuy wax mooy dinañu gañe wala ñu gañe loolu nag kuy dégg di nga xam li ñu bëgg a wax mooy population bi ànduñoo ak ñoom mais am na leneen lu ñu lal ci ginnaaw mais coalition bu mag bi muy coalition Idy 2019 coalition gagnante bi pare na pour lépp képp ku ñu gis nga taxaw pour bëgg a yàq dara dinañ ko jëflante